tey dañoo daje fii nii di def benn conférence de presse ngir fi nga xam ne Orange daf ñu faa bëgg a jëmale ndax tey ji bu bëggee xëy bëgg a tëj zone bi na la yow tey fi ak fii doo fa jaay damay andi sama benn zoning loolu maanaam dañuy bëgg a li nga xam da ngay liggéey loolu nag moo doon loo xam ne projet boo xam ne nanguwuñ ko benen bi mo nek li nga xamné ne ne li ñu déplorer mom moy tay ji yóbbu ñu au chômage parce que ñu ngi imposer ñi nga xamné ñom lañuy la ñuy liggéeyal carrément nañu diminuer sen masse de travail si mooy ñi nga xamné lañuy la ñu jëm leen diminuer à 10 personnes si lo xamné ay milliers de personnes ñoko doon liggéey ah lool nak lañ dul nangu parce que ñun ay père de famille lañ ñi ay euh, chef d'entreprise lañ ñi amna ño xam dañoo top sen ginaaw du liggéey

gis nañ suñu morom yi nga xam dañoo dee ci gaal gi leneen ak leneen kon du ñu nangu tey orange di ñu jël di ñu noot loolu la bañ. mu xam ne tey jii ñam daan xeexal ak tey bokkul ñu sommes motivés tey ji booy seet Sénégal yëpp dañoo booloo bépp jaaykatu crédit ñu ngi déggante ñu ngi waxtaan te instant yi pare nañ dans les jours à mooy fan yi ñu jëm mooy booy boycotté lépp loo xam ne produit orange la duñ ko jaay ci terrain bi xalaatuñ koo jaay waaw ba tey ji semaine wala weer du ñu jaay benn produit te xeex bi pare guñ ci de ndax bu yaakaaree ne instant ñam doon noot ak tey ji ñoo yem bokkuñu bokkuñu ñun dañoo instant dañoo motivé loolu boo xoolee Sénégal tey jeunes yu bëri foo romb tey ji crédit la ñuy jaay kon je dirais que ay milliers de personnes yoo xam ne tey ji ñu ay quatre mille quelque quelques personnes yoo xam ne tey ji wala lu ko ëpp sax ñoo war a dem chômage parce que booy seet ñi yëngu ci branche bii nii ci jaayam crédit dafa dafa dafa yaatu

je m'en si li ngeen xalaat waaw te te li ma leen waxoon bañ ñëwee ñoo nee naa leen carrément yéen da ngeen nekk seeni bureau climatiseur di leen ëpp ñu ñoo ne ci terrain bi ñu ñoo xam ne ci terrain bi te travail bi ñun ñoo koy def kon yéen a ñu wax li ngeen xam ne loolu la ñuy def jàngeen ngeen nag mais nag ñun ñooy xam ne réalité du terrain di laa leen tegaloon. buur ma jënd produit grand bour ñu bëgg ma empêcher duma ko jaay coose xam nga grand bu rek laa koy mën a jaay loolu foo ko mos a gisee yow commerçant waaw nga jënd sa produit ñu ne fii nga koy jaay man commerce ba mosumoo gis aduna te loolu duñ ko nangu te ñoom defuñu leen loolu ñoom bañ fi ñëwee dañ leen yaatal jàppale leen kon ñoom du ñoom ñoo ñu wax lu ñu war a yem waaw seen bénéfice bi ñu am nañ ko liggéeyee mais duñ jël seen bénéfice di ko suñu bénéfice ñun bëgg koo pour leur propre euh, intérêt loolu duñ ko nangu.